Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen dalal jàmm di am mbégte ak contentement di addu ngeen di teewlu boo leen ñu gisee tey ñu ngi ci plage yu Ndaayaan ñu dellu siwaat fii gannaaw bi nga xamante ne ñëwoon nañ fii indi leen fii euh, waxtaanu Tyson 2 mu nekkoon lu am am solo. ñu dellu si fii fas yéene waxtaan ak moom gannaaw bi nga xamante ne c'est officiel combat ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Franc bu Parcelles euh, taxaw alors ñu bàyyi ko mu nuyoo mbokku téléspectateur bi ñu yaatal salaamaaleykum. waaw ngi nuyu ñëpp di nuyu waa pikin Pikine fa laay jege quoi <laughs> di nuyu waa Wakaam Tivaouane Ndiassane di nuyu ñëpp quoi Ndayane Popenguine Popenguine séeréer comme ni ma ko daan defee rek di nuyu suñu mag yi dëkk bi quoi waa Ndayane ñëpp mag gune ak ndaw. di nuyu sama gars yi xamante ne ñoom laa toogal fii waaw. Euh, ñu jékki-jékki li ñu doon ruumandaat ma ko doon wax for nañ ci wéy bu béy nii combat bi taxaw na combat bi finalement jël nga gone gi de. waaw mu ngi noonu comme li ma daan wax rek man xam nga temps yële passé bi nga fi ñëwee dama ne man bëre laa am bëre mooy sama métier man damay bëre buñ ma fayee lu ma ko jalal damay bëre quoi waaw loolu la rek. mais lan moo tax nga jël nga jël franc. non yow loolu lam li ma daan wax rek man bugguma loo xamante ne da ngay jël mag ñoo xamante ne saay muy loolu loolu du neex dangay jël gune yoo xamante ne ñoom nga tollal doole béré béré bu neex béré si jom béré si ful c'est le meilleur gain ki yàlla may ndam ah bu boobaa yàlla na ma yàlla may ndam mais gone gi est-ce que du risque trop par rapport ak fi nga toll ci làmb par rapport ak li nga liggéey ci làmb gone gi départ nga nga nga tàllalaat ko loxo comme ni nga koy defee comme ni nga koy tàmm defee. sama sama 19 combat bi risque la. lépp risque la lépp risque la. amul dara lu amul waaw ah, xoolal fi ma jaar. na réel bi moo koy jël la ñuy wax risque la. waaw hmm? ma foofu jëlaat kan. jëlaat ay maliens ñu naan risque la. ku ma jël 50 cent ñu naan risque la. ku ma jël ñu naan risque la. ba ba kii de Goro Sock. waaw ñu naan risque la. doomu daangu ñu naan risque la. doomu daangu bi doomu risque. risque la de. léegi nag amul combat bu ma jëlul ñu naan risque la man risque yooyu laa gën a sawar. mais est-ce que gone gii neex naa bëreel Franc est-ce que neex naa bëreel mësagul daanu mësagul dégg muñal nga jël ko. man ñaata combat laa def 19 combat ki def ñaata na dama ne kooku làmba boolew woon. en tout cas jël nga avance gone gi bi ma ko seeti jee dafa ne tey ngay gëj dugg parcelle. Euh, ree la la def de mais booy bi il était très sérieux ñooñu moom xam moom wax la ñu gën a mane quoi. la parcelle. waaw est-ce que bi may jël góor a soog lu ne laa si dëj ma jógee fa bi may jël kii say na la garga de lu ne laa si dëj ma jóge fa jëlaat góor a soog lu ne laa si dëj léegi fu mu mujj xam nga ñoom da ngay bàyyi ñu ñoom wax wax rek ñu mën a wax rek mais li ma daan liggéey dama koy gën a doublé. non man xam nga tey combat yow boo ñëwee combat bu ne risque la bu nee risque la boo jël bu ne rek dañ naan risque la kon dama koy gën a yokkaat rek. gone gi nee na ma. may may dim may may génne si risque yi rek. François nee na ma yàgg ngaa dugg jël ay booy mais moom bokkut ak kenn si ñoom nee na li mu liggéey équipe nationale xaaj bi liggéeyoo ko équipe nationale li mu def ci lut simple liggéeyoo ko ci lutte simple te combat bi muy gaawee sa bés. équipe na voyagé naa trois fois équipe nationale. maa ngi six médailles maa ngi siis medaay benn argent cinq or kon xam nga ne kooku man li ma def defu ko. nee daal li mu def li mujj li mu def. déedéet man li ma def defu ko si équipe nationale man dama toj équipe nationale jaar naa Burkina Togo Niger fu ne dem naa fa bëre ji kon lan moo tax moom mu mu lay défier noonu ne li mu liggéey li mu liggéey équipe nationale yow xaaj bi liggéeyu man fii dam fii laajal gars yi toog suñu kër fi dama fi naan eew nag am amul dëkk bu ma jëlul làmba fii amu fi garant yoo foo fun terrain gaal gi fu ne jël naa ko mais moom de li muy bàkkoo guddi yi ñu toll lépp lu gars yi teg ci lutte simple moom moo koy jël waaw lépp lu gars yi teg ci simple moo koy jël rëg rëg a bëréwul rek. minimiser nii booy bi quoi da ngay minimiser ni nii. Oh, rëg moo bëréwul la ma lay wax nii rëg lan la du lebu lébu la kay. waaw mu ngi noonu rëg a bëree. fi mu toll nii yëpp bëre dër bi kan nga ci wax fi mu toll nii rëg nga ci tudda franc mais da nga daan dëjee si mbapat yi ngeen fo doon vingt nangam ay vingt nangam litre yoo xamante ne ñëpp ay jama ngi de ay kuut Edouard dim la jox jaar fi mais poids lourd amatu fi. moo tax bëre simple bi dafa yomb de. pour yow ravage gi mu nekk di def nii lu ñu teg mu ñëw jël ko pour yow li muy liggéey dafa yomb. waaye déggoo li ma dama ne la bëre simple bi dafa yomb fi mu toll nii bëre simple bi yow xoolal gars yi dañuy buuxante rek. kon Franc day buuxante. ah ñooy gars yi gars yi waaw yow ah gars yi <laughs> li tax nga jàpp Franc di ko minimiser man jaaxal na. minimiser wu ma ko mais gars yi dañuy buuxante mais bu ñu xamee qualité di bëree bëree bëree. yow bu ñu boo boo gisee mbër mu jàpp rek di nga xam ne kii moom qualité la yor. yéen ku daax ku daax ku daax a techniquement. man. man. yaa daax a bëre. waaw. Hmm? rek. boo xoolee samay daan ñu te tegoon daanam ak samay daan du doon benn sax. boo ñëwee ci xeex. ah xoolal rek. Ah, yow yow xool nga samay komba <laughs> xool nga samay combat. xool mais Tyson yaag yaag yaag Franc ko daax xeex. déggoo li ma xool nga samay komba xool combat bu dee xeex maa ko daax bu dee bëri maa ko daax ñoom xam naa la lañuy wax li ma waxoon góor a soog rek dañ naan moo la ëpp doole <laughs> loolu la ñuy wax la ëpp <laughs> ñuy wax lan la ñuy wax la neen te yow gëmoo loolu. waaye dama ko gëm gëmuma loolu de. pour yow gone gi ëpp ëpp la doole. waaw yow déggoo li ma la wax mbër yu mag yi li ko daal si kaw ba suuf amul kenn koo xamante ne kuñ ma si joxoon avance am dama koy delloo wala leneen mbër yu mag yi laa la wax de amul benn mbër moo xamante ne buñ ma joxoon avance dinaa delloo ginnaaw wala noonu. calculé woo ko sax si doole calculé wu ko man calculé man mbër laa calculé wul fi mu toll amul mbër mu may calculé. mais loolu na boo ko tegee sa kanam ne calculé wu ma euh, xale goo xamante ne illeer la euh, ah, xaw rek man amul mbër moo xamante ne man dama koy calcul lu ma si calcul xale boo xamante ne ku mu jàpp ma kenn du ma calcul kenn man samay tiktak la indi andi wu ma béréw keneen samay bos laa indi moom bu ko neexee mu andi béréem teg man man samay bos laa ak li may entraîné li may liggéey moom laay andi andi wu ma bérélu kenn man sama béré laay andi lamb ji tey ji amul men mbër moo xamante ne ma moo ma daax a bëri si lamba ji amul men mbër muy takk si ngemba si lamb ji fi mu ne moom a daax a bëri amul cekk gars yi xam naal gars yi dafa am loo xamante ne chance la rek chance la rek mais du men mbër moo xamante ne mu ngi takk ngee moom ma daax a bëri Franc bokk na si xale yi nga xamante ne tey euh, li muy mobiliser macha allah nga waaw bu dee bu dee mobiliser man li ma la waxoon rek man samay gars yi gis nga ndeyaan ni mu mel nii gars yi fi mu toll nii oto bu ne yaa ngi koy ay quatre-vingt mille dañuy dem stade ñoom dañu may dooleel géeraw ndayaan jifir oto yi joge jifir yaa ngi koy fay cent cinquante mille mu door dem oto yi jóge Joal billet yi doog a ñëw kon man li may dej amul men mbër mu xam ne da koy dej yow dañuy jóge ba ndaayaan fii ñëpp mobiliser tubaab jëlaaw ñu dem te bu ñu ñoom bu ñu demee dañu may yoo ko dañ may yoo ko jom yow xam nga defet bu ñu jëlee defet dakaar ba neexul. na métti na. Hmm? loolu lu ko gën a métti moo tax chaque jour man su may bëre ba jàkkaarloog ñoom nii bu doon benn cent la def dama koy yokk kon ñoom dañu may dooleel bu baax. mais Sénégal di napp taay euh, di napp di man ni laay man ni laay waxee nii laay bëree <laughs> amul lenn lu ma siy quelque. yaa ngi napp booy may man ni may waxee man noonu laay bëree amul lenn loo xamante ne man dama koy dama koy. maanaam waaw di jéem a man ni may waxee nii man noonu laay bëree taxay xam nga bu ko bu dara desul heure bi soufflé foofu la ñuy xam jàmbaari foofu foofu la ñuy xam jàmbaari man CNG mosul dagga sama 1000 francs CNG mosul dagga sama 1000 francs mosuma bëre mbër di arrière xam naa fañ lañ ko dagg xam naa dañu bëggoon lekk sama xaalis rek <laughs> bi ma defee recours <laughs> recours fay ma mille ñu joxaat ma sama victoire xam naa dañ bëggoon lekk sama vingt cinq mille rek waaye man moo suma arreeral mbër moom attaquant la ni yow de waaye man <laughs> loolu mooy ne man loolu laa sawar Franc day ñëw loolu laay sawar mbër moo xamante ne day bëre di ñëw di bëre di ñëw mais bëgguma koo xamante ne day dem xam nga di daw di jaar côté bii nan daje si milieu bi rek kuy ñëw kele yi génne fa man maay jëkk ñëw maay jëkk dóor yaa njëkk a dóor maay njëkk a ñëw yow kon neewoo fi sax di ka laax laax di am lu may laax laax wala lu may def def man maay jëkk ñëw maay jëkk dóor maay béré béré bi maay def lépp aw ma lu ma koy soor si dara amul lenn loo xamante ne man dama dama si xalaat wala la neen mais booy bu weesoo loolu am na benn affaire benn atu boo xamante ne am na ko muy 100 pour cent parcelle bi parcelle bi roi des arènes di fa fanaan mu ànd ak sa sa sa euh, mu ànd ak mu ànd ak Modou contact ñëw jàkkaarloo ki nga xam li ma la wax dama ne la parcelle maa leen daax a bëre waxuma oh, ay 100 pour cent parcelle laa la wax parcelle boole si parcelle ñëpp déet parcelle Modou Lo fa ne si ñëpp. ko si boole. Modou Lo. waaye boole si ñëpp laa wax. Papa Sow amul Modou Lo amul waaye amul Modou ñëpp laa si wax. te li laa ko teg. nga ko teg. non dama ko teg fu rek. mais yow da nga ànd ak sa doomu ndey contact ngeen ñëw. Modou daan la deux mu daan ko deux fois. nga bëgg a wax ne yow yaa dàq Modou mais loolu day am. tey jii am seen victoire mu ne na ko tey ji tey bu ñëwee ñàkk si Modou Lo yoon daan na Balla Gaye yoon Balla Gaye daan Modou Lo ñaari yoon kon ñoo ñoo niveau rek waaw mu ngi noonu yow bi may bëre góor soog ñan la daan kontaagal bi may bëre góor ñu mu daan kontaagal du 100 pour cent bi cent bi la la daan àndal di yéeg din dañuy daje din yi bi bi may bëre moom Franc la daan àndal di yëg din te dañuy daje din yi dañu daan daje din yi ñu yéeg may yéeg ñu naan la lan luñ may wax yow kañ bu fekkee danga nga ñeme mbir bu ko wax dara yaaga yaaga lii suñu naa dinañ daje yaaga yaaga dinañ daje xamoon naa ne daan daje jarul nekk fii di wax yéen <laughs> mais yow lan nga bëgg xanaa da nga jeexal parcelle. parcelle non du question jeexal sax xam nga nun bëre la ñu am man gisoo boo bëreewul damay ñëw fii di dem géej. di relax di dem géej di relax di ñëw di joxe dépasse. Hmm. nekkuma fii di xaar kombawal di xaar leneen su ma amul combat damay ñëw fii toog samay mbokk di dem géej waaw xam nga di dóor waar bàyyeeku ma benn yoon nag waaw. d'accord d'accord lan ngay wax waa Pikine surtout ci wàllum mobilisation bi si wàllum jàppale bi parce que aussi combat bi combat bu bu bu doy waar la bu am dayu la aussi boo xam ne soxla nga ñëpp nekk sa ginnaaw. waa Pikine man li ma ma daan wax rek. waa Pikine dañu war a gën a mën a jàpp comme ni ñuy jàppale Eumeu seen di ko jàppale booy ñaar di ko jàppale Ama balde war nañ fa mën a jàppale waaw war nañ ci mën war nañ ci mën a jàpp bu baax a baax a baax waaw surtout ma waa ñiti mbaar waa ñiti mbaar moom samay combat dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax man bëri laa am mooy sama métier tey ji am na combat yoo xamante ne tey ji man bu ma seen damay bëri ak Balla Gaye tey du ma toog xaar ñoo xamante dañu may xaw ma dañu may jël wala duñu ma jël di calculer ne man loolu nekkuma fi bëri laa am damay bëre damay def compétir bu ma sañoon damay dugg si mbapat mais sama gars yi ñoo ma naan bàyyil mbapat bi bàyyil mbapat bi. ah boo ñëwee bi de dañ fa fekk franc. waaye déggoo li ma la yi ñoo ma bàyyil mbapat mi man daan na ma bëri ñu gën a ës ñooñu. yow dama lay wax benn affaire ñoom ñoom rëkkalee la nëkkalee la booy ngaay bi muy bëreeg Sa Thiès nu ñu combat bi demee ak man bi may bëreeg ñooñu nu combat yi mel ku si ne maa daan si matul une mais est-ce que boobu moo fi nekkaat. xoolal rek mais Tyson bu mujj bi xoolal rek. arbitre moo yaax sama combat mais waaw moo yaax sama combat mais ay secondes la woon 30 secondes lay la combat bi noonu duré te xam nga lan moo tax ñu def loolu combat bu ne ni ñu koy bëree combat boobu xam naa góor soog xam naa ni muy daanoo dama xamoon ni muy ñëwee xam ni muy daanoo. non moom <laughs> moom day ñëw. waaw booy ñëw koñ lalal ko pièce rek Franc buy ñëwati beneen pièce la ñuy lal rek bu bañee kele bi dama koy andil beneen kele rek. da nga koy enchaîné. enchaîné man maa maay borom kele yu bare yi. yaay borom kele yu bare yi te xoolal man li malaan daan bëri mbapat ba léegi bëriwu ma ko aareen. ah booy bi day ñëw. waaw booy bi booy bi man xoolal samay combat man léeg-léeg lu ñu bëgg a def paa. non non non non doo pas 2009 nga ñëw ci làmb doo pas. mais mais mais mais Franc quand même yow yaa ko ci làmb loo tax ñu naan booy bi Franc mais Franc moom day ñëw. waaw man dama lay xamal benn man dama gëm sama bopp xam nga kañ laa takk jabar avant may bëre bi ma amee 20 ans dama takk jabar avant may dugg arène laa jël soxna. avant may dugg arène laa jël soxna. waaw samay doom mën nañu ànd tey dem entraînement yi te yaaxaluma sama dara. man maa ngi si ma maa ngi gérer sama soxna yaaxaluma dara waaw man neew ma fi du curax curax de neew ma fi du curax curax kenn corox corox waaw moom dama dama dama lay leeralal foofu rek <laughs> neew ma fi du curax curax quoi man dama gëm sama bopp respecté sama bopp waaw lan ngay tàggatoo gars yi lan ngay lan ngay remercier lan ngay wax euh, ñu ñuy seetaan ña voilà ñan ngay suñu maire bi Mansour Thiandoum yow laay wax combat bi da nga si war a jàpp waaw te jàpp si bu baax ku si mel ni Ali Samba Ciss bu jas awma fayam ku si mel ni Sarlo Sarlo lu nekk lay def si ma combat ndey seen nag waxuma ay waxam da siy def lu bare Ibrahima Pouy ah Cheikh Sarr bu pikin ñoom suma ngañ am ah, ëm mbaami loor dañ siy jàpp bu baax a baax ama seen xuja gars yi daal dañu si jàpp bu baax a baax baax te dama bëgg ñu gën a mobiliser wu bu baax baax a baax a baax ñu feesal stade. 100 pour cent bi bañ la. man 100 pour cent 100 pour cent dañu ñu ma ëppal xam nga lan moo tax ma ne mën ñu ma ëppal. yow bu amee lu jóge Ndayane am lu jóge Pikine am lu jóge Joal nan lañ ma si ëppale. c'est que mu ne ak ni nga koy joobee rek man suñ ma fayee lu ko jar damay indi supporter yu ko jar buñ ma fayee lu ko jar bu ma indi supporter yu ko jar. kon bi <laughs> lu bare. <laughs> jërëjëf jërëjëf waaw mu ngi noonu nag di leen bëgg bu baax di bëgg di la bëgg Cheikh Omar sama tirandoo Elage waa di gërëm ñépp nag man sonalu ma si dara yéen sonalu leen ma si dara man bu dee man dara du yaaxoo si man waaw dara du la si man waa sama manager Ibnu Ibnu Diop maa ngi koy remercier bu baax ama seen xuja ñëpp maa ngi si ñoom Cheikh Ndoye maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di remercier aussi Vox Arena sunu promoteur bi Badou. waaw Vox Arena maa ngi koy remercier bu baax xam naa gisante woonu nag mais maa ngi koy remercier bu baax di kontaan si yéen rek. waa xam nga bi ma jógee si Goro Sock xam nga ñu bare ñu ma daan contacter affaire yooyu mais tey yàlla la ñu booleel ñuy liggéey quoi kon loolu dañ si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw di gërëm sama gars yi xam nga boo limee dangay ngay ñoom Ndiasse Baye Ndong xam nga rek Mr Boy V6 ñoom ñëpp boo limee da ngay jëm quoi. affaire yooyu di gërëm ku ci mel ni Baye Daouda ñoom Ousseynou Diop xam nu ñooñu kenn lañu si man quoi ñoom Mot Fay su mu amee combat dañu bàyyi seen lépp xam nga ñooñu dañu dem liggéey affaire yooyu ñëwaguñu quoi mais ñoom ñooy nekk ci mbukaay li ñoom ñoo fay nekk. <laughs> waa di yëngal man du ma def dara damay lekk ak naan rek. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.